asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki internet yi ñuy seetaan uh, ci seen uh, chaîne bi di TDV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax uh, fas yéene ànd ak yéen rek c'est émission santé bi nga xam ni baaxoo woon nañu di ko ànd ak yéen tey nag ñu jëleen beneen beneen yoon te mooy ba léegi ci santé la waaye bii beneen yoon lañ ko gën a xamee loolu waral ñu ñëw toog ak ki nga xam ni moom mooy docteur Diakhoumpa Euh, su ko defee rek docteur ñu lay bàyyi nga présenté wu ak euh, internet yi kan mooy docteur Diakhoumpa. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum askanu Sénégal asalaamaaleykum télévision des valeurs rawatina Baye Ousmane euh, man docteur Ndongo Diakhoumpa maay coordinateur régional bu fédération national fajkatu aada ak cosaan région de Louga suñu bureau nekk ci ministère de la santé. ma boole di agent de santé di agent de la Croix-Rouge euh, man maa ngi en face préfecture sama téléphone di 77 315 11 82 soo ñëwee ci immeuble Mor Mbaye la rek da nga ma gis. maa ngi woon tey di waxtaan ak yéen. Mhm. ci wàllu fajum aada ak cosaan. Euh, fadum fajum aada ak cosaan yatuna na euh, ba taxna ñu bëggoon a ñëw rek xamna buñ ko waxee ci nasaran moom mooy euh, tradi tra euh, pharma euh, maanaam médecine traditionnelle ak bi nga xam ne dañ koy wax pharmacopée ak bi ñuy wax médecine moderne léegi nag ñetti yooyu lañ bëggoon nga wax ñu si lan mooy seen différent médecine traditionnelle yàlla moo bind doomu aadama bind médecine traditionnelle bon médecine la boo xam ne nit defaru ko nit defu ko mais yàlla ci bopp moo ko bind mu bind nit biñ demee ba ci ay jamono euh, ci la yenn borom xam-xam yi jëlee maanaam molécule médecine traditionnelle mu jur pharmacopée traditionnelle pharmacopée traditionnelle àdduna bépp a koy jariñoo parce que fii Sénégal soo xam ne la fajum olof du fajum olof fajum aada ak cosaan la réew yëpp a koy def biñ jëlee molécule pharmacopée traditionnelle quelques années après def ay recherche loolu moo jur tey médecine moderne médecine moderne noonu la euh, soo seetee ne médecine traditionnelle les médecines traditionnelles lañuy wax duñ wax laa dafay yaatu parce que am na zahir am na baatin ñu deme na nun ñu faje ay gàncax mais am na ñoo xam ne yàlla may na leen ñooñu dinañ ci boole alxuraan ak yeneen am na ay alxuraan am na ay côté boo xam ne côté ndëpp la côté xërëm yooyu yëpp am na ci. méditation ah, dafa yaatu. loolu mooy traditionnel quoi. waaw mooy traditionnel. mooy maanaam ñiy faje si côté euh, bind. bind. ak ay plante yeeg dañ ciy boole plante yi en même temps wala. waaw côté bind. Mhm. am na côté bind am na. Mhm. Euh, mais plante. soo demoo tey Arabie Saoudite doo fa gis ñuy bind ci plant seen lépp ci alxuraan la. kon am na ñoo xam ne rek ñoo ci jël di ci boole plante mais plante alxuraan su demee ba am lu koy jàppale kooku déli la plante plante kese la war a doon alxuraan alxuraan kese la war a doon. kon kon traditionnel bu ñu ko bëggoon tënk rek mooy lan. traditionnel mooy fajum aada ak cosaan. ci lan lay ci lan lay fajee moom. ci li muy faje mhm. mooy ci gàncax lay faje mhm. ak alxuraan. léegi pharmacopée moom copé si si lan la lan lay yëngatu moom si nan lay faje lan mooy baasam pharmacopée baasam mooy gàncax ak mala yooyu yëpp dañu par exemple tey gàncax yi dan mooy médecine boo xam dañ koo defar defaru def ci ay recherche créé ko ci ay laboratoire ba trouvé li muy ba ba saytu li muy faj mala yi aussi dañ ciy faj comme lu demee na algue de ñu koy wax waax soo demee lébu yi dañ koy sànni te or ko kooku dafa baax ci asthme baax ci ay rhumatisme euh, am na garab gu ñuy wax euh, aussi kii fièvre kooku aussi day faj ndoxum géej ci boppam day faj ndoxum géej day faj salaatu géej day faj te soo demee ci jën yu bëree bëri dañuy faj bon kooku ci wàllu ndox mi la wàllu géej gi te ndoxum taw mi ngay gis tey faj loolu yëpp ci médecine traditionnelle la bokk suuf si ngay gis lu demee ne ban day faj loolu yëpp ci médecine traditionnelle la léegi nag li médecine moom moom la tubaab bi jël mu jur médecine moderne bon médecine traditionnelle mooy maamu médecine moderne ndax médecine traditionnelle moo jur pharmacopée pharmacopée moo jur médecine moderne maanaam li nga xamee da yàlla da koo sos muy médecine traditionnelle ñu ciy faj ak li nga xamee nit ko defar loolu rek la mooy différence bi. kon kon kon bu ñu xoolee mooy lu ñu moderniser la maanaam par exemple comme ni nga daan jëlee xob yi bu ñu waxee traditionnel mooy da ngay jël plante bi euh, originalité bi moom ngay jëfandikoo mais bu dee moderne moom par exemple mën na ko jël. Euh, defaraat si leen comme def si ay comprimés def ci ay sunguf yoo xam ne si dañ koy naan direct mu wala du noonu. waaw noonu la moderne dañu jël ay gàncax ak ay mala essayé ko saytu ko ci laboratoire jël lu demee lëg xam nga lëg ak nit ak golo ñoo bokk organisme ñu essayé ko ci feebarloo euh, mala bi ban ko loo ñu fajaar ko ci garab ba garab ga antu su garab gi anto nag kooku moom la laboratoire yël di ko jaay pharmacie loolu mooy médecine moderne. Hmm, loolu mooy médecine moderne kon euh, médecine traditionnelle jiitu na ko fi lu yàgg avant moderne di ñëw. médecine traditionnelle jiit na ko bu yàgg médecine bi yàlla bindee àddina rek la ko bind médecine yàlla la. waaw ah, ñu gis léegi ci côté médecine traditionnelle yi bare na koo gis rek mi ngi koy woote liggéey boobu yéen en tant que yéen nan ngeen ko gisee. liggéey boobu dafa jaxase lépp kenn xamul nu mu demee ndax léegi koo xam ne euh, amoo liggéey wala nga bëgg a dund rek da ngay ñëw beru. luyee fenn def sa publicité surtout ci média yi kenn du xam kan mooy kan euh, médecine spécialité la war a doon tey soo demee dëkk bu ñuy wax barile dàmm-dàmm rek la ñuy faj loolu moo doon médecine traditionnelle jamonoy maam nga dem kër Modou Xarimbub ku rek la faj nga dem fii ci kër Sëñ ci famille aaj ñooñ dañuy wàcce jaan societé organisé wul méditation ci jamono yi maam doon ko organisé wul na naa feebar sangam ne dama seeti dëkk sa wala diw sangam léegi nag gaa ñi lépp la ñuy def parce que ñu ci bari dépense nii wut dépense te d'ailleurs dañuy ñoo xam sax dëkkuñu ci dëkk bi doo xam fu ñu jógee su ne ñu ci dëkk bi ñooñ mën mën ñu laa trianté parce que suñu amee xam-xam xam nga suñu amul xam-xam xam mais ñi koy def sax doo xam fu ñu jógee ci yeneen réew la ñuy jógee kon da fay tekki ni moderne ni mu ko defé nga xam ne dafa am spécialité non la traditionnel mel normalement traditionnel am lo loo mo ne ngi war a fan modern, ak lo man war wara fajj waaw moderne ci traditionnel sax la ko jëlé hmm. parce que so démé tay ñom rek euh, nga amone problème beut nga sét goor gëni wax ma Kumba Ñang hmm. ñepp xamné ku la ci ki su dé lak lak la gas xol goor ñuy wax ma Kumba Ñang bon nonu.

def def nañ benn association ay année 1985 association boobu ànd ak ay association ba nekk association nationale ñu jógee ci mu nekk fédération nationale ci Sénégal yi 14 régions yi soo seetee ne nun euh, dañu dañu jël benn carnet tënk ci fajkat yëpp sa photo da ciy ne sa numéro téléphone ak lan ngay faj su fekkee man naa nga mënuma ko faj

kullu koo xam ne fajkatu aada ak cosaan nga nga jege sinu soo nu jege see ñu dugale ci association bi nangul sa xam-xam laayoon sa xam-xam jël jéemunoo jël gis sa xam-xam mais danu bëgg rek pour tegle ci yoon parce que buur mënta wax ak ñëpp kenn la mën a waxal fajkatu aada ak cosaan su nekkee benn tànk comme ñu ni ko nekk ñëpp fekk si ci loo xam ne dañ koy dañ koy joxe rek day dàgg mm-hmm. mais su fekkee ku ci ne da nga yore sa fédération fële dara du dox mm-hmm. Euh, par rapport xam naa ni balaa ñu ñëw ci plante bi nga xam ne tey moom nga ñuy may ñu war ci dugg pour nit ñi mën ci am njariñ yéen ci wàllu liggéey bi côté hygiène bi muy côté cat geeg yooyu est-ce que yéen ngi sàmmanteeg moom comme ni nga xam ni euh, médecine moderne moderne noonu la koy doxalee. waaw wàllu hygiène bi euh, su fekkee suñu fédération la nun ñu moom bu baax a baax a baax parce que xam na lan la ñuy récolter plante. nan lan koy were nan lañ koy raxasee parce que su ne médecine hygiène moo ci jiitu hygiène mooy ci jiitu su hygiène amul su baaxul médecine du baax. ci côté conservation bi niñ ñu koy dencee euh, durée bi délai bi mu war a jeex ak yu mel noonu est que loolu tam yéen ci plante yi wala loolu amul ci plante. am na parce que garab durée deux ans rek la war a am. waaw même ci xob même ci xob yi am na ci loolu ak reen yi. waaw ci xob yi. suñ jëlee tey xob xob jaa ko war a weer ci ker te sooy récolté garab da ngay dem le matin de bonne heure da ngay teel a dem période boobu nga ngay dagg garab su fekkee dafa taw kenn wut laal garab su fekkee dafa lay kenn wut laal garab su fekkee dafa tàng jër boori une heure ci ngoon ay une heure yooyu ba midi kenn wut laal garab période boobu lañ koy dagg suñ ko daggee ba pare su fekkee xob la ñu ngi koy def ci ker. su fekkee ren la ren ak xas danoo bari ndox lool ci naaj leen koy teg foog mu am ay weeri weeri weer pour nga mën ko dugal ci perméable mais am na ñoo xam ne comme ñu ngi ma laaj suñ la jaay ay reen soo ko fëggee day fënd parce que tey leen koy jënd suñ koy jëndee ba pare bàyyi ko ci saaku perméable yi normalement ren mi ngi war a nekk ci saaku ciment saaku këyit ci la war a nekk su fekkee dafa tooy su boobee ba pare na nga koy soog dugal ci perméable kay loolu nga wax moom xam-xam la boo xam ni man mii sax c'est la première fois mu xam ko jàppoon naa ni dañuy dem rek daggi rek ñëw teg ndax léeg-léeg dangay ngay gis yoo xam dañuy weer comme nga fu nekk poussière beeg pënd beeg euh, naaj week fépp daal amul euh, benn hygiène et puis amul benn euh, loo xam ne day wane ni lii am na garantie am na solo bokk internet yi xam naa ni kon ni ngeen ko déggee ñi ngeek docteur Diakhampa moom mu nekk di praticien noonu la Euh, en même temps praticien praticien de la médecine traditionnelle. voilà mango kon nag euh, noon la su ko defee rek euh, mbokk yi xam naa dañ ñëw rek mu may ñu benn plant tey ban plante nga ñuy indil pour mbokk internet yi. tey mbeñ fela mbeñ fela gigante laa leen di may ñuy wax citronnelle de brousse ñu ko wax mbeñ fell. mbeñ fell mooy wolof bi wala. wolof bi mooy mbeñ fell. Mhm. Mhm. nekk na genn garab goo xam ne. Mhm. dafay faj ngas. dana faj ngas mm-hmm. dana faj feebaru góor dana faj ictère ictère dañuy jaawle ictère ak fièvre ak ak ak ak pays ictère soo siburo euh, maanaam siburo day attaque sa res su ko defee say say cër day day mboq dañ koy jaawle ak pays am na ñu koy jaawale aussi ak euh, manqué deret manqué deret aussi da ngay mboq mm-hmm. waaw mais loolu ñuy wax ictère da koy faj dana faj ictère dana faj pays mbeñ fa la gigantes boobu koo xam ne saw daf lay jafe da da lay dimbali day nettoyer ay rein maanaam aussi day faj tàngat euh, dana faj aussi estomac ñu ne antiseptique la baax na ci góom te am na feebar yoo xam ne grippe moo ci man am na ñoo xam ne dañuy soj wala des fois ba seen fii euh, seen pour day am problème duñ mën a lekk wala day am problème kooku meñ felaa da koy dindi day dindi fat baax na ci feebar tuberculose baax na ci bronchite baax na ci pneumonie bon baax na ci estomac yooyu yëpp da koy faj loolu lay faj kon kon moom nekk na garab goo xam ni garab gu am solo la euh, garab bu am solo la mhm. parce que fi nan la euh so bolé meñ fell bi so ko boolee ak ngeer day fay ay problème pulmonaire ñe fleur yi soo ko boolee ak euh, ngolanc ak rat bon koku aussi euh benn ben lan ko def ak boisson bax baax na ci lu bëree bari ñu né garab gi ci bopam so seetee ne bari na Sénégal même tubaab bi ci bopp tubaab bi ci boppam su épidémie amee dañ koy jël maanaam épidémie jamono bi nga xamee ne loolu ñuy wax pays dafa amoon fièvre jaune moom moom la tubaab bi doon fajoo boobu siècle mi ngi soog commencé mbeñ feli ci boppam euh, juridique tigle maanaam day faj loolu ñuy wax soppis reen yi ak feuilles yi Euh, dana faj migraine maanaam xaaju ba buy metti dana faj aussi tàngooru yaram bu jéggi dayoo lii daal jigéen ñi comme tàngooru ménopause boobu metti aussi dana ko faj euh, dina faj sax waaw ñuy wax bilagieuse bilagieuse sax la woo xam ne su fekkee da nga dugg ci dex di doxe tànku nen da lay dugg dana faj pays dana faj jaunisse dana faj ñi nga xam ne dañuy saw muy génne deret dana faj tuberculose pulmonaire euh, aussi moom ci boppam soo ko boolee soo ko boolee que maanaam jar mm-hmm. ak ak maanaam xobu pun baax na ci asma bon am na ñoo xam ne dañ koy xooj pour maanaam euh, su fekkee ji def la feet kooku da ci agir da ciy agir ku lu loo xam ne rek grippe la wala siburu benn fell da koy faj ak soj kon moom kon moom ay njëriñam bari na trop mais ak composante yi li ñu bokk bu nekk ak na nga ko war a fajo par exemple bu dee grippe la sibbiru la bu dee pays la nangam bu nekk na ko war a jël du mbokk ak morom ji. non du mbokk tey su mm-hmm. fekkoon grippe la. Mm-hmm. da ngay jël mbeñ fel bi. Mm-hmm. nga baxal litre ndox ba mu bax nga fay gaz bi. jël benn ngëbu. ngëbu mbeñ fel def ci. bàyyi ko ba mu am juróomi minute. nga xent ko soo ko xente nga ci naan kaas mag suba kaas mangoon. bon kooku noonu lañ koy defee. su dee pays la. genn wa kaasu ataaya nga jël ñetti yoon par bis su fekkee ne grippe boo xam ne dafa tiital nit la wala sibru bu garaaw a garaaw wala grippe kooku da ngay boole mbeñ fel ak ngeer ngëmu mbeñ fel ak ngëmu ngeer kooku moom ngay def moom ngay baxal ci liitar ndox soo paree xet ko di ci naan macha allah am na même su fekkee yaram wuy xesan la mm-hmm. wala ay problème yooyu dan koy sango am na ñu koy sango mm-hmm. macha allah njëriñ yi bëri na bokk internet yi xam naa li ñuy gën a bañ mooy euh, gars yi xam nga yëg léeg dañuy copier rek dañuy dégg lii tey docteur Diakhoumpa wax na ko rek ñu dem jëli ko kooku def naa ni euh, nga nga mu am euh, danger yi moo ëpp nga fajoo si yaakaar na danger yi moo ëpp. Hmm, hmm. parce que dañ la ne importance maanaam kan moo naan. Hmm. mi tey nga dem ci mbërbeef. tey ku am ndoxum si mbërbeef ngay jël. te mbër bi su fekkee jigéen wër yi jël na ci lu bari da koy indil avortement xay ci boppam li may laaj taay xasum xay bari na or que xay baax na lool mais su ëppee day attaqué sa res. bon man garab yooyu xam naa après daañu ci ñëwaat. mais ñu taxaw rek ci plante bi. waaw pour pour gën si expliquer léegi yéen dose yi est-ce que yéen koy respecté normal am na dose comme bu fekkee si médecine moderne la daf lay jox ay comprimés wala mu jox la ay sachet. yéen ay xob ngeen di yore ak ay reen nan ngeen di respecter dose bi. xam nga dose. kooku waxu colonialiste la. Mhm. xam nga doos di ko wax waxu sabotage wala jéem a gëlëmal nit ki. parce que tubaab bi nin amee culture nun danoo am culture. defe naa tubaab bi ñu fi ñëw fekk ñu fi ay néew. ay doomu aadama leen fi fekk ak seen culture seen médecine ak seen lépp. suñuy maam comp lan xam. Mhm. dose waxu tubaab la nun comp lan xam ay comp. comp ñetti baaraam tey par exemple tey su fekkoon amoo balance te nga bëgg a faj nit soo bëggee 30 grammes su dee loxo bu tudd la soo su na ngëbu loxo mi soo ko defee lii mooy 30 grammes su fekkee lii la comp ñetti baaraam kooku moo lay jox 2 grammes bon ay xottu gerte suñu maam yi daan nañ ko utiliser danañ utiliser kook yooyu yëpp ay comp la su fekkente aussi dañuy gas dañ daa gasee nii la def soo nee nii bii ak bii nii baaraam bi nii kii moom ngay mesurer par benn reen di ko dagg di ko dagg loolu la woon problème mu yooyu yëpp nun dañ ko am ay comp la ak ay xàmb kon tubaab bi dafa ñëw réeral suñu culture andi culture am takku si kawam. voilà dafa ñëw réeral suñu ko li ngeen yore dara baaxu ci li ma amee baax jënd leen ko te ñëw lépp ci gàncax lañ koy jëlee so demee en route amna na tubaab yoo xam médecine de famille lañ ko wax lii rek lañ gëm Europe ñoo nu dàq jaay ren gëna respecté xop lool la. allah waxtaan wi neex na amna solo ndariñ génne na ci waaye ñi ngi ñaan rek internet yi ñu bañ a euh, euh, ñu baña euh, manam copier limu wax ra dem bëgg fajj bu ba da nañu lor seen bop lor ñeneen bu ko defé yeen su ngeen soxlo faju rek man ngeen jaar ci. Diakhoumpa numéro téléphone yaa ngi noonu ci suuf ngeen di gis incha allah bu ngeen ko woowee dañ leen wax fan la nekk mi ngi nekk en face euh, daanaka rek boo ñëwee ba préfecture entre préfecture ak chambre de métier diggante boobu boo fi duggoo boo nee Diakhoumpa ñu wan la ko euh, ndax garab gi nga doon wax euh, am na fii Sénégal garab gi. garab gi fépp la am ci Sénégal. yow am nga ko fii nga nekk nii am nga ko. mi ngi nii. gis nga kii grippe bu la jaaxal. Mhm. wala sibiru bu la jaaxal. Mhm. wala problème yooyu. Mhm. soo ko jëlee mucc dafa gaaw ba dee soo ko boolee ngeer yaram buy tàng si buro grippe ak soo jóg yooyu yëpp da cay gaaw même ay asthme pays estomac ci boppam da cay gaaw yooyu yëpp da koy réglé. kon am na solo euh, noonu leen ko docteur Diakhoumpa waxee noon la demee Diakhoumpa lan ngay tàggoog moom mbokk internet yi. li may tàggoog mooy ko internet yi maa ngi leen di remercier leen gërëm te ñu moyte garab parce que dana garab gu ne.

wax dëgg yàlla télévision bu baax la ñi ci accéder Sénégal bari na lool di la gërëm yow maam Ousmane di gërëm ñëpp di gërëm Sénégal te réew mi ñi ci ñaan jàmm te feebaru bon bi ñu fexe ba ñu ñaan yàlla mu jëlee ko fi ñu jële ko fi yàllaa ko fi indi yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin waaw. kon jërëjëf mbokk internet yi mi ngi noonu loolu mu nekkoon seen émission wér gi yaram euh, euh, santé. Euh, tey ñu seqoon ko ak docteur euh, Diakhoumpa nekk fii ci Louga ci euh, en face préfecture entre préfecture ak chambre de métier boo fi ñëwee rek di nga gis Diakhoumpa nga ñëw def sa consultation incha allah. teg ko si yoon mën a fajoo ak li nga xam ne suñu maam yi moom la ñu daan fajoo ba ci yonent bi salaa salaam sax euh, traditionnel lañu gisoon ni moom la doon fajoo ak li nga xam ne moom la expliqué muy ay ñaan yoo xam ne si joxe na ko kon su ko defee rek ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ci beneen émission ak beneen plant boo xam ni euh, mbokk internet yëpp daañu ci jariñoo di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu